jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax tey nag ñoo ngi fii Tandengue Wakhinane seet si ki nga xamante ni nii mooy Balla Gaye junior ñu koy wax Takké démb moo bëri arène nationale moom ak Boy Pouye mu am ci ndam lu rëy xanaa ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu wéyal waxtaan bi Takké nuyu naa la. tey génne naa la moom bi ginnaaw bi sant yàlla di séeréer bi sant suñu bëri wala di sant suñu baax a baax di gërëm gërëm di gërëm di gërëm seen di sant suñu sëriñ Ba Massa di gërëm di gërëm bu baax di gërëm sëriñ si si ak moral di sant maam Cheikh Mbacke ak suñu Modou Bousso di sant ñu njabootu Paale bi yëpp ndax gis naa ni jàpp nañ si làmb ji daal. mais ñu gis combat bi bi mu taxawee yàggul. si lan moo waral nga jël combat ci un mois wala boog lu moyen dama dégg mas mbër euh, du waaj day hmm. jooju dafa nekk wax ju am important. man moom su chaque jour damay dem entraînement. wax ma combat ñu ñàkk ma wax yow combat la. chaque damay daaj fanaan chaque jour jàpp naa ne man suba la ma war a bëre. <coughs> moo tax bi combat bi taxawee bi ma si waxee dama ne ko père man ragalu ma loolu. mais su doon suba suba sax pare naa pour bëri. yaa choisi woon Boy Pouye wala boog moom moo la bëggoon wala dañoo dox combat moom ma lu yàgg Max Mbargane sax moo bañoon. mais Max gàntal naa Assane Ndiaye bi mu sës ne ma dama koy jël ma xam na nag xëy na daa am lu mu yaakaaroon mais lu mu yaakaaroon moom dogoon na. parce que man avant avant ngeen di ci digg géew bi dem naa waxtaan ak moom. mu ne ma kii fecc rek la mën te lansaasu bi moom laa bëggoon bëri mais da am na keneen ku ma bëgg bëri mais il faut ma daan ko ba noppi su ma paree doog a laaj kooku euh, nan laa ko lan lan moo tax lan moo tax bi nga ñëwee nga ba noppi am li ngay wax naan dafa am loo xamante ni daf ma ko waxoon si mu fekk doon loo xam ni bi nga koy wax yëg-yëg nga ko doon wax te eh, loolu mooy que gis nga maanaam doomu aadama eh, gis nga wax. waaw lu may ngir yàlla wax eh, dañ wax ju rafet dafa baax si doomu aadama ndax ñun ñëpp ay mbër lañ. mais ndax làmb ji day jeex dañuy tourné xoolaat leneen mais soo xasee ba génn si internet yi leneen loolu du mos a denc. parce que alxuraan am na ñoo xamante ne dañ ne ma carrément ñu ne ma man leen ñu ne ma wax ji wax nii. yee eh, suñ la faraloon woon sax dañ la faral mais eh, pour man sa adversaire yee war ngeen mën a communiquer signature war na mën a neex. Eh, te kenn dépassé sama morom quoi eh, mais daf ma surtout daf ma jël eh, ma desee xam xamuma nag jël na ma mais xamuma te ma ko jaaree ba jàll la doo nga xam ma jàpp bala benn pataala la bu taxaw ndax chaque jour maa ngi koy romb bu jigéen ba may liggéey yi di ko romb ba muy liggéey du ma ko romb su ma paree lu may liggéey laa koy romb mu jàpp ni liggéeyatul entraînement dara looloo ko dal confiance bu bëri nag moo ko daal jàppee ndax joxu ma cër bi ma war a jox parce que dañoo gis abi dafa soxla rek mu dox ci sa kaw ngay weccante ak mu ay ku mu daw ñëw nga koo ko pomp benn ñaar bu wàcc nga ndax dama ko pees ndax euh, mu weesu arbitre ne prix mu gëdd ma ma arrière ndax si yoon man maa ko waroon a gëdd mais man dama ne woon làmb si soxla ma si conseil samay gars dañuy wax man leen soxla wu ma conseil dama war a bëri xam naa mais bi ma demee bi ci digg làmb ji ñoo xam ne ma woo téléphone dama xaaral deux minutes mais mais man dama jëloon intention pour dem mais nga bëggoon xeexal moom bëggoon maa moom wax ji mu wax noonu mais dama ko bëggoon humilier si làmb ji. wax ji kon danaa dafa ma métti parce que Alxuraan dafa ma métti moo tax bi ñu jàppante moom xam na soxla woon bëree. dama ne balaa ñëw bëri dinaa ko duma. mais moom lan la ndax. abi sifle nga bëgg koo wan ne li nga ma wax dafa mooy li ma wax mooy respecté wu ma joxuma cër bi ma moom quoi. mais ndax nee na ma daan ma benn champion kon soo xoolee bi may daan Belele moom amuñu fi di jël Belele bi may daan Big ñoom amuñu fi di jël Big Mo xëy na nag suñu borom bi defal na ko mu am treize combats. am na treize combats am si mais loolu da koy trompé mais ndam lu bëri bokkut ak adversaire yi ngay bëre eh, ndax mën nañ la xàllal yoon eh, te taman xàllal luñ ma yoon mais eh, man suma combat yëpp moo metti amul benn combat bu may def ñu naan kii moo mën te chaque jour dañ may jëw fekk combat boo xam ne bu ko kenn dul jël kon mu ñëw jël ndax jàmbaar man xaw ma tànk arrière loolu la demee mais démb dañoo gis bi nga bi nga taxawee di bàmb sab bi ñi la faralul sax dañoo kontaan ndax tuus mu neex ak ambiance ak déggoo ñi nga àndal fekk mi lan saa mais secret bi lan la da ngeen koy répété lu yàgg wala nu mu demee noonu loolu bu daanaka ci semaine combat bi lañ koy répété dañoo gis ne ambiance dafa bokk ci làmb loolu rek day daan bët ndax soo xoolee du ma gis naa yoo xam te dañoo ñëwoon démb signé si mhm. mais dañ lay xool da gis da gis ne ñii dañoo kontaan mhm. te te te yeneen écurie lañ bokk dëgg la soo xoolee bi may fecc ñu feccee ba daaneel maanaam mu yëkkati sama loxo ñëpp yuuxandoo dafa war a dégg waaw dégg daf see bokk quoi dafay yëngu benn làmb kese donc mu yeneen yoo xamante ne ambiance ndax amateurs yi am maanaam loolu soo feccee ba wàccee rek maanaam dañuy kontaan ñoom su leen jaroon cinquante mille ñu leen jënd cent mille loolu dafa bokk si làmb lamb yi dañ koy waaj te lamb ji dama koo waaj pare ko ak sumay mbokk eh, du ma si léegi amul benn autorité bu ma jàppale amul kenn ku la si jàppale amul kenn koo xamante ni yëkk dina mu ngi doon jox ma dama maa la ko jàppale eh, su may xarit kese kese ñoo si jàpp barke alxuraanu karim ma nit ma demee si ngoor ba jeex tàkk eh, ndax man damay bañ ba xëy dee mais dama gis chaque instant booy bàkku da ngay bàkku ba ci yàgg nga ne Baye Fall laa maanaam man euh, Mame Massamba borom Ngathie laa yaakaar te kooku Cheikh Ibrahima Fall mooy maamam te di combat bi seen ñaari fan dama dem Ngathie nee na ma rus na ma nga fekk ko Ngathie mu bañ la koo Ngathie boo ko fekkee Ngathie mu Ngathie loolu. Ngathie loolu. te loolu si xamul suba wala gannaaw dama war dem Ngathie dem ba émission. ndax man aw ma lu dul maam Masamba borom ngaaj ndax moo ma defar mais bu ma kenn bëggulee moom mu jël defaraat ma ba nit ñi bëgg ma mais man kooku aw ma fayam quoi ndax chaque jour daf ñuy xamal ni taalibe dafay am yar taalibe dafa am lu mu war di doxee mais man nag chaque jour loolu lool dama koy jëfe di ko doxee sant nag doomam bi sëñ Seex jëmm sonn na ci combat bi trop trop trop trop ak Serif Assane Fall ak Baye Oudous ñu nañ ci làmb bi te lu leen dugal si làmb yombul hmm. waaye ñoom soxlawuñ daraay làmb te buñ si duggee rek ñàkk pexe la te buñ xamul luñ lay def lan lay defal lan lay defa tax hmm. euh, gannaaw làmb jàll na suñ toon ni porte yu bëri ubbeekuwaat na am na bëri daan moom ñaari avance ñett dafa xew yow sa avance jot na jàll suñ ah, li nekk sama kanam bëri na xam moom ñun koo si tudd tur. démb daanu. da nga naan da nga koo waaj. mais man pare naa pour làmb. mais dafa am foote ko sa tànk. mais ñu toog boo xamante ni gisatuñ la déggatuñ wala boog. Euh, Balla Gaye junior bañ naan gis gisatuñ ko. fi mu toll nii gannaaw yàlla def na jàmm ba ndam am na. xanaa di mën a ne place bi laa bokk fii laa waroon teg sama tànk. te dama fa tegaat sama tànk. Euh, gis nga làmb. dafa nekk loo xamante ni dafa yéeme dafa garaaw. loo si nekkee yor mémoire bu ndaw tuuti nga xaaj. xam nga supporters yi luñ gëm mm-hmm. ndam mm-hmm. Eh, mais bul ñàkk ba saali te soo ñàkkee liggéeyaatal ba ku la gis du la xalaat dina ne kii mi ngi ci entraînement yi bis bu ñëwee day baax parce que loolu moo nekk suma biir xel kon looloo nekk sama xol looloo laa gëm mais ñi nekk suma kanam nag bëri na man ku si mel ni Pape bëgg naa te may tuur ñooñu maa ngi ñooñu ay làmb la eh, rakul Lac Rose bi làmb la. Eh, man soxla wu ma lu yomb. su ma andilee wala ma si eh, ma gis naa ko ngi làmb ah. ah. man pare naa pour làmb man làmb mooy suñu métier moom laa gëm ak séerans. su paree rek man pare naa. séance bi nga ñëw ndax ci loolu laa ñëw ndax mbër dafa war a am métier ndax bi bi ñu toog tëj làmb dafa mel ni yow même yëg même boo ko tamit du ci du du du wax mbër yi nga xamante ne amuñu métier euh, am na ñoo xamante ne dañoo umpale même su nekkulee mbër sax doomu aadama dafa war a am foo xamante ni da koy génnal métier di ko gis nga tey doo duggee si kenn benn kër ñaar subaa nga dugal gannaaw suba jéppi la te góor war nga mun a am la nga xamante ni da koy bañ waaw ñun ñëpp ay nit lañ so kooku day dem liggéey ñëw di indi pourquoi pas moom loolu muy def yow mënoo ko def jàppale mënul ñàkk mais du chaque jour soo amee combat mën nañ la jàppale mais su nekkul làmb da war a mën a am si business yoo xamante ni moo lay génn wécce ñu bàyyi loolu xel bu baax su ma rax yi nag laay waxal moo gën a yokk may wax waaw ndax mbir yu mag yi sax prince dañu am problème xaalis waxatuma lak nag mu ndaw yi mais bu def ñooñu référence quoi Euh, bu ñu def ñooñu référence gannaaw nag euh, làmb dafa metti te làmb saa bu amee il faut mu am ñoo xamante dañ ciy jàpp ñu bàyyi leen nga sant gërëm ndax démb sax jotoon ngaa gërëm mais des fois xel mi day fàttu nga fàttali sant gërëm li may sant gërëm mooy que di jiital suñu mag fii Cheikh Ndaw ma gannaaw yi man aw ma fayam suma gannaaw bu baax la suma gaan Samba Ndiaye ak sama gaay waa déranger ñu mel ni ñoom maas booy déranger ñun ñëpp dañ si sonn baagri booy si sonn man benn instant dama dem sax dama leen di yéene sax am na yenn sarax yoo xamante ne ñoom seen biir ñoo mujj di génne wécc di ko si def kon ñooñu mënoo leen fay su ma duggee seeraat di sant ci bi su ma lawbe sant ko bu baax a baax ndax def na ko si làmb si it noonu moom it mu bàyyi huitième bàyyi lépp pour làmb bi kese Assane nopp Fouta waxi nopp lamb bi ñu si jàpp ñoo bëri te mu tax it kese la mu doon nen quoi ñii la mu doon ndam ndam kese la mu naa li ma si fekk nii man yàgg naa dund lamb mais mosuma ko gis mosuma ko gis suma live moo tax su naree neex waaw su naree neex day mel ne luy métti mais bi affaire waree neex neex boobaa maa ngi ñaan mafia bi yëpp comme ni ñu ko defee démb. Eh, maa ngi leen di ñaan eh, yàlla bu ñu seytaane dugg ndax seytaane fu mu xajul képp lay dugg eh, na ñoo jaamu yàlla yoo xamante déggoo la ñuy bañ a gis yee a def lu am luñ ci teg yàq seen diggante ñaan suñu borom bi ñu suñu borom bi suturaayu ñuy xàccandoo di daal ndax mbooloo mooy doole su xoolee àndee rek li ñuy indi dañ sant nag suma papa bu baax a baax a baax yaay ndax awma ma lu dul ñoom eh, di sant ñëpp nag eh, ñu solo si laamu ji dafa bëri su may lim bu ma fi jugee eh, maa ngi sant ñëpp képp ku si sonn ndax xel koy sant même Siteu ñëw ci lool ndax dafa mel ni samedi bii di ñëw la Mama Lamine di daje gàgg mm. bu ñu ci tegee tuuti Siteu Papa Sow. lan nga koy wax ak Liss Ndiago Liss Ndiago. yes mooy rak am na am na kii nu mu tuddee commissaire u kii bi ki muy bëre. caatu caatu rëbës. caatu rëbës du ma ñëw sax ci loolu. mais Garga 2 Mama Lamine noo gisee euh, li ko gisee mooy que ndam lañ gëm te moom lañ gis te moom lañ liggéey. incha allah loolu moo nekk suñu xol. mais suñu ñaan a bëre. kele bu mu teg bu réussir mu tegaat beneen Mama Lamine lan nga koy conseillé wala boog lan nga koy wax loolu mën a jàkkaarloo kooku di loolu ko conseillé eh, di ma ko li tax du ko conseillé mu mu liggéey xam na li eh, mu sentir si yaramam eh, la mu doon def di ko am ndam du ko bàyyi. mais adversaire duñ benn mais duñu benn mais Garga bis bu ko manipuler mu wàcc yaramam attanu manipulation. loolu nga yaakaar. wallaahi déggoo ma de. maama ko fi doon ay ay ay Modou Lo lay ah, ay franc man mii sax sama neexee contact ak loolu kay dara nekk si. mais bis ba la ñuy wax kay cappaajal yi waaw non li ngeen ne li ngeen ne Maama Lamine bu ko manipuler du taxaw looloo tax ma wax. non du taxaw bokkul Modou li muy bëre ak Maama Lamine li muy bëre bokkul. Maama Lamine li muy bëre. Maama day bëre day jàpp boo yaakaaree xeex mu doon bëre bu loolu saa yi gis. dafa jël poids. ñu bëri ñu bëri nee xeex moo koy arrangé ci bisub làmb xeex day bëri làmb laa xeex ñu xeex suñu liggéey buntu su ma ñëwee ci Siteu Papa Sow. sax nga gisee boobu làmb. Papa nekk na adversaire bu gaaw rapide te fu mu dóor moom buntu fee. waaw fu mu dóor bu ndubeen mais Papa dañ ko bëgg a xamal ni ko Dakar du saf safaan te la mu waroon saf saf na ko bàyyi dafa mel ni sàlli làmb du làmb xale lañ dañ see toll ñu moom dem yoon ah nee na de min na lansaar ndax jotoon na fee dugg am lu mu fi def waaw mais bi mu fi jugee lu fi def mu jël démb bu génn nee sa ko plaqué de mu daal waaw bu ñëwaat jël si sa nee na ko yoon bi dañ ko war a daal mais suñ doon est magum la si làmb ñoom suñu su mel ni fëgale bi aw ma fayam quoi làmb bi da see sonn eh, bu ne def la ko si eh, ba jour star sax day woote eh, mel noonu aw ma fayam ah kon xam naa dañuy dañuy dañuy tëj rek ba beneen non balaa ngay tëj damay wax si Liss Ndiago mm-hmm. ndax su ma raq la ñëw bokk dëkk si quartier bi mais ko te su ma neexoon mën nañ ñoo doon teg man mais cër bi ma moom sax jour su ma gisee ci biir xool ma saa du ko def mais di ko ñaanal ndam mu set wicc sama biir xool laa koy tuddee sama combat taxawee ñoom sax seen bopp dañ dama yow amal ndam rek soo amee ndam ñun ñëpp ñu am ndam ndax yow sa xool dafa rafet maanaam lu mel noonu it yombul nga nekk say rak ñu la te di leen ñaanal ndam ak R5 bi waaw ñoom it am na combat di ko si ñaanal ndam mais booy jàmm gën bi yëpp te lépp booy bu def jàmm gën ak combat maa lay ñaanal suñu borom bi sutura la la yii la yii la yii la ak booy yoole yoole mafia yoole yoole bi waaw gis naa ni booy sonn nañ ci làmb te sonn gis naa booy bi déggee ko gaal bi mais na biir def daan tey ñu seet su ko waxtaan moom ci combat bi waxtaan moom ci ñu ko jàppale waxtaan ak moom ci li nga xamante moo nekk ci kanam xanaa ñu doon def victoire ci waxtaan